kon mbokki Sénégal waxoon nañ leen ko yàgg maar damay summi mbaxana mi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp tey la dimanche 22 décembre 2019 ak kan Dieye seen Serigne Ndiaye numéro 2 Libidor yaa xool rang bi nële maar ri 11 baa ngi nee ngay seen pour wan la ne rek amateuru lamb yi am na lamb yu ñuy wër waaye bés bi la cee bokk xam nga sa waay Dieye seen nag yaa ma gën a xam kii mooy Maodo fay mooy tëggal Libidor Maodo bëgg naa waaw eh, sama waa ji. ana sabar yi. sama yaa ngi ci biir ñu ngi ci oto bi. tëggal libidoor tey. tey laa koy tëggal lem bu saf suukar. lem bu saf suukar bu yokk suukar. booleeg meew. waaw boole seeg. tey neex a naan de. tey eh, kenn du ko lijjanti. ngeen di xam ne. kuy jéem bokkul ak ku mën. roy bokkul ak pire ki mooy Baye Bass le gose magique. ay you know what saa mee na. Maodo Ngongo waa këram maar. maa la ko wax. nokki yaa ngi di dugg mbër. bëgg naa la. Babacar ñu ni buntu bi mel tey waa sama sama yaram bu ma gisee mu mel ni sama yaram day tàng quoi barki yëpp dama yéeg sama bopp na gars yi waxoon man ma bëre Babacar dama war a bëre barki Alxuraan bilaay maa lay bëgg lu bëri nag quoi. rang baa ngi nii moto yaa ngoo nguy dugg yaa ma gën a xam ak oto yi te max yi lépp ci biir. rang ku nekk ak sa mbër maar ku ne am na mbër. 4x4 oto yu ndaw yeeg kaay buur géwél a di dugg. pour lamb ji ndax du lamb ju mag a mag. lamb ju a mag la. Serigne Ndiaye. Fass ku mu dese. Ah. Serigne Ndiaye. Grand mbooloo Zarko nekk ci ne fa. ku fa ne. du Libidor. kon cooki la Babacar. cooki waay waa Pël xanaa Dakar ak ti nga ne Kankang da rey. borom Gambia. yaa yaa wóor. doomu ndeyu Balla magi Balla Gaye 2. magi Balla Gaye 2. le monument de Guédiawaye. waaw loolu loolu yàllaa ko def après waaw waaw Babacar après ndax li ma a wax dafa yaar ndax am na koo dëkk micro am na lu wax dinaa ko tontu dinaa ko tontu. saa nga yàkkamtee xeex la noonu la fa demee kon maar libidoor bu ka bu kayaar Miss maa ngi lay a kuy sa mbër yow. Mor Kanka. Kanka. Mhm. ñu ñooy waa Kayar comme la nga wax xoolal ba nga ñëwee ma faram amul loolu fils de Dioum doomu kii waay doomu kii waay ñun ragalul wax ñun affaire bi Balla Gaye de fils de Double Less mu bëgg naa la Vito la Vito maar buntu baa ngi nii Mister Dieye maa ngi lay bëgge maa ngi lay fay bu baax loo yor nii ci loxo bi ah non non non lii <laughs> bi moom moo taxaw ci port bi ah non non ci port bi de waaw kon dama ñëw yem ci may arranger gars yi pour ñu jàll. parce que man ku nga xam sama làmb fair-play laay doxee. fair laay dundee. mais mais li ma lay laaj làmb ji damaa xool buntu làmb ji ba ca kii ba tali nit ñi. loolu moo tax ma téye billet yi pour bàyyi nit ñu dugg parce que dañ leen di téye pour mu ci ak yooyu noonu pour ñu mën a fekkee seen tuusu mbër ak seen kii ak yooyu ndax bés bi moom bésu jàmm la. di woo ñëpp jàmm rek. jéey seet jërëjëf. borom géeja way borom kulub port baa ngi ni commandant sama gars yi bëgg naa góor gérer naa leen. yéen ci biir. waaw nuyuwaat ñëpp ñu ngi ci biir. leer gee njool moo féete góos. eh Zoro xam sa cosaan premier combat de la soirée. waaye lam jaa xam naa teel naa bëri nit. macha allah. ñu ngay lewaatoo de njool ak ndaama. yàgg ak Babacar. Eh, na jël ko. daw na jël ko mu sol ko génn nañu ca biti. arbitre soufflé waat na gëdd na koog droite leer ak bébé Sora daw na jël ko mu ngi koy yee eh, laa ilaha illallah waay yàgg maar waay waay bébé zora oh yàgg maar bi jël yàgg da koo xëcc mu ñëw mu taf ko oh xool sa waay xoolal leer gi leer gi xoolal leer gi leer gi waaru na leer gi waaru na leer gi waaru na jël na avertissement moom Fils Dioum droite daa waaw waaw dajale ko de eh booy buuba takk na ko de booy buuba koy wiite lonku na ko ca ginnaaw xanaa jël waa xattar bi daan jël ba rëy sax waaw lool la ko booy buuba def daan na ko jël bu rëy te leer nañ looloo leer dem na cay supporteram troisième combat mu la soirée doomu Diamaguène Recoba Recoba à gauche doomu Diamaguène à droite eh lu mu ko bëgg a def tëgg caxabal mu bañ kanam caméra yi doomu Diamaguène Recoba continuel nga dem ñu nga ca de doomu Diamaguène Recoba dóor tibb na ko daan na ko daan na ko daan na ko de arbitre daa mel ni daan na ko de ah way daan na ko de daan na ko jël bam ko daan rëy reko ba ca irrigué reko ba ndaysaan armé lour ak Aliou Diouf maar yaa nga ca bata jon wax na moom ba génn Aliou Diouf cargo Aliou Diouf lay Ndiaye à gauche Babacar à droite sant ka muñ Laye Ndiaye Laye Ndiaye le meilleur parmi les meilleurs arbitre bi day waaj a soufflé armé lourd à gauche Ndiaga or mu ngay wax ñoom ne soufflé leen di tàqale yàgg maar yàgg maar suuf leen di tàqale moo leen di boole mbaa dégg nga loolu maar bàyyil xel ci la arbitre bi wax ak ñoom arba soufflé na de arbitre ba njaga or école malika wala armée lour boog école malika Aliou Diouf ca barajon e eh, door na ko une deux Aliou dooraat na ko njaga da koo jàpp Aliou Diouf jàpp nañu ko armé lu jàpp na ko Aliou xeex na moom Aliou ponkol ba hey dina ko daan de dina ko daan de waaw waaw waaw ah, armé luur dooraat na ko une deux eh armé luur xoolal sa garde gi ni la Aliou Diouf di dóore neexuma de une deux yi mu lay dóor nii boo ci jógul du baax de kawa mën na ci am de Aliou Diouf Cargo laa ilaha illallah pied droite pied gis nga day dugg génn dina ko dóor mu daanu taw na eh! arme lourd taw na maar jëlal arme lourd arme lourd a arme lourd taw na R4 ba toj na r ba ubbeeku arme soufflé waat na ñetti avertissement trois avertissement arme lourd benn Aliou Diouf cargo kon yóbbu nañ 15 pour cent moom armé lourd armé boo daanul combat bi dina métti ci yow dem nga ci ardo dagg nañ ci sa xaalis dina métti ci yow. mais eh, daw na jëli ko takk na ko Aliou Diouf cargo Aliou Diouf ak armé lourd bi tuur ay waay yàgg maar yàgg maar xoolal ni ñu def armé ay yàgg maar waa armée lour mi yéen waaye Aliou Diouf cargo jaay na ko yëfi cargo xoor armée lour Aliou xoor armée lour mënut a jóg armée lour mii waa kii moom bilay maar mbër day entraîné maar ba ne ca moo gën a wóor ar entraîné ba jor doole looloo ma doy maar del entraîné man de bu ma ko arbitré woon ba tey tas naa wàcc na takk ko bi combat wër na ko ndombo da koy daan a ah, woy booy rek làmb ji jeex xalaat naa di nga daanu de déet waay bul dóor kii daa doy li ko gaañ waaye doo daan kii nag wala mënoo koo daan bañ na de waay jii làmba metti waay dina raw de dana raw de raw na de raw na de raw na raw na daanu nga daan na ko léegi oh boy waaye bii combat metti ndeysaan oh daw na yaram ñoom ñaar ñëpp a gaañu yàgg. Dieye ziar naa la. Babacar maa ngi lay siyaare baax. tey nga tëgg làmb xool stade bi macha allah fees macha allah comme niñ koy waxee mu mel ni tey combat bi nga indil amateur yi daa mel ni bëgg nañ ko. d'abord damay wax euh, inna lillahi wa inna ilayhi ndax dama am dese tey. ñu ngi lay jaale. waaw euh, sama xarit koo xam ne dafa am fu mu nekkan mbuur nekkal ma fa euh, moo wàññeeku tey suba. fa laa jógee nii d'abord mais combat bi euh, neex na amateurs yi ñoo ko soxla woon ñu décoré sa jox leen ko tudde ko suñ jigéen maam jaara femme mu ngi ci yoon bi di ñëw mais di gërëm promoteur yi di gërëm ñëpp axlu làmb daal ñu leen di gërëm ndax ku ne xam na ne tey la làmb tijji lamb man lañ doon xaar ma tijji ko tey la tijji. yow lañ doon xaar. yow wóor na ne man la ñuy xaar ma tijji man la ñuy xaar ma tëj waaw. macha allah jërëjëf. kontaan ci yow Bamba maa lay ziar. dellu siyaar Babacar Bamba borom le 28. waaw ñu ngi waaj le rek dara umpu leen ci muy samedi incha allah di drapeau seen xarit seen confrère Saliou di ñaan ñu dem si jàmm rek ñëw si jàmm delluwaat si jàmm. sama xarit sama doomu ndey Saliou. ndeysaan waaw Saliou moom Saliou ñëpp la daal nañ ko ñaan rek ñu ñëw si jàmm delluwaat si jàmm jërëjëf. président écrit nga entraîneur nga wala loo doon. man la man du ma président écrit. balaa gis nga yóbbu mbëri ba ci géew. école d'élite ba da joon Daouda Diouf mooy président bi. waaw yow yow day yow yaay. Ah, man encadreur laa rek man damay encadré booy mais man du ma président. boo gisee làmb ci nu mu mel. man président Bawol sans frontière laa mais duma président benn écrit président Bawol laa yow xam nga loolu. tey làmb ji ni mu mel nii ah, waaw làmb ji na. ah neex na combat yi fi jàll di remercier rek sama booy bi Aliou Diouf cargo parce que vraiment xale bu yaru la xale bu mën a bëre la te it ñeme na entraînement dégg na ndigal daal ah lambi tey ji nag ki ko teg de di sunu rak di suñu xarit te ku xool tey libidoor bu Grand Yoff nga xool euh, kii Serigne Ndiaye tey combat bi dina miti parce que Fass daa am lu ñu baaxoo Fass saa yu benn mbër génnee rek def sorti muy mbër bu mag temps yooyu daan leen day jafe parce que Ngar Sarr bu fa nekkoon dinañu def ci moom loo xamante ne nii du neex a daan. te comme Papa Sow na fa ñun ñu ngi leen di xool boo xam ndax turu boobu dinañu ko fat tey it xam naa lu. Mohamed ziar naa. Babacar mu delloo ziar. maa ngi lay bëggee. maa ngi lay ziar wér ba yaa ngi si jàmm. yow yaa tëgg Jetli ak euh, euh, mbërum Kayar mi. waa Jetli jam yi. Mhm, le 23 la incha allah. arène nationale. yaa ngi koy waajal. waaw ñoo ngi si wàccaay incha allah. Mohamed borom Géejawaay. waa borom Géejawaay ñëw jàppale sama sama grand frère Dieye. arbitre souffle na sixième combat. Mame Balla ak Ndiaga wala Mame Balla ñaari eh dugal mbër yaa nga ca de door na ko de fàq uppercut ëpp lay na ko ndombo Mame Balla wër nañ la Mame mbaa duñ daan bopp la bëgg sam waa yow dangay ngay caméra looy def yow mii da far wala da ngay caméra waa yéen doyul waar wër na ko ndombo de kan ak wax ma mbaa daanoo ko ah, lim ba ta rafet wax nga dëgg lu rafet des ko apprécier dóor ee eh yaa xool arbitre bi ni mu sukkee yàgg maar xool Malick Ngom na mu ne sukkee na leen jàkk genou baa loxo ba ca suuf waa malik songali na léegi yàgg lee mooy songali Youssou Ndour ne songalinga songalinga songalinga yàgg maar ku manul bawul laajoo tay def lu yàq loola moom mu ne ko Youssou yow da yàqoo dara di góor di jigéen e waay waay àlla sek yàlla na ko yàlla yërëm waay xare ko aljana mook bépp doomu aadama bu tëdd ci suuf waaye kenn du Youssou Ndour way rek lay def mbaa xam nga ne Youssou waa bawal ak ndar la ah bawal bawal de ak ndar ndar ñaar yooyu la boole nag ma wax la ko tay maa lay jox boobu information déggoo Fatou Gueye ne ko borom rande ca Poufoun Poufoun ab dëkk la ca Bawal la ne diggante Kabaak Poufoun ak Xombal ak dëkk yooyu. waay wër ndomba waay. daanoo gulam lu xew dañuy compter temps baa jeex xanaa lu xew dañuy compter temps baa jeex awoy ah daan na ko temps la temps la daan nañ la mu ngay xeex ak mobile bu leen xeex waay waa li ndax yoon la mobil daw na mobile assan maa ngi lay bëgge Babacar Ndama naka <laughs> borom la 28. na génn de ndaamali na génn borom la 29. tey saboté di daf may sabote mais kii sutuma mais yow nga yegg sama dënd nga yegg si yow xam naa yaa ngi yaa ngi ndey kumba faal waa kan moo sut borom la 29 yaa ngi kumba faal ku sut ndey kumba maa ko sut yaa sut kon da tongu ni la le 29 waajal combat yu doy waar le 29 jox ñëpp rendez-vous fii fii dina tàng dina métti tàng métti Tafa Mbër Alioune Seye Junior Joomaay saa dem ba Thiaw Boy Jobaas caatu montagne guy gi bu Mor benn bi. benn bi combat yu doy waar mi ngi ci. jëlee naa benn xale bu ñuy wax euh, l'enfant de Kër Baba ci waawoon laa ko. ah xam l'enfant de Kër Baba. dina ñëw wane boppam fii dimanche dinañ def si kàttanu yàlla leneen ak feneen fi incha allah ak Baol Production ak Leewtoo. arbitre soufflé waat na Bito à droite Boy Maroon à gauche waa moom lu ñu nar Vito yaa Boy Maroon ak seen signature ba na mu neexe xeex door na ko mu daanu door na ko mu daanu Boy Maroon door na Vito mu daanu Boy Maroon dóor na fi doomu daanu oh Boy Maroon da dóor mu wàcc mu yeggali ko. eh waay dofu jaas waaye liiru borom drapeau bi borom la 4 janvier eh takk na ko da koy daan dofu jaas daan nañu la jël daan nañu mbërëm Maguette Seck ma daan nañu mbërëm liiru jaan ma jël bañ ko daan a déet foo jëm waa yow mii mooy tunu arbitre ba soufflé na pied gauche pied droite Mor Kang koy gëdd koy gëdd Mor koy gëdd kanka nga koy gëdd Malick ngay wax ak Serigne mu ngay wax ak kan waaye déggal ma ne Serigne Ndiour Serigne Ndiour bërewul di loo soo day bëree ndox mu tàng mi kankan xanaay weñ la ndox mu tàng lu man ci weñ ñu xool ba xam fu ngeen jëm xeex nañu Mor Kankang dem na dóor yi loo soot fayu client ndeysaan door eh Lo Sow da nga koy door de mu koy door hypercure yu méttee métti Mor Kang Kang yaakaaruma tey sa yombu de a ngay fayu waaw waaye mu ngay fayu moom itam ñu ngay dóorante de Mor Kang Kang eh la ilaha oh! Mor Kang ay Mor Kang waay Mor Kang waay eh waay waay yàgg maar e, waay Mor Kang Kang nga kii déedéet kankanga ngi jàppal ma kankang jëlal pareegul de pareegul de Malick a ngi nii bëgg nañ Malick Ngom ngi fa sama jabar la may laaj Malick Ngom yóbbuwaat na lisaan xool Serigne Ndiaye am na lu mu yor di ko ca xool li mu door wan ko ginnaaw ay xanc ay xiis am na lu Serigne Ndiaye yoraat am na lu maar xoolal ca tànk ya oh lamb cey lamb ana waa Fass waa waa Gueule Tapée waa Colobane Gibraltar centenaire seen doom a ngi Serigne Ndiaye waaye Kayar Grand Yoff ak dëkk ya wër seen doom a ngi Libidor ndeysaan e eh, waay kang-kang waay kang bi yaa ma koy analyser ah moom nga seetaan si dama andi woon booy mais booy bee daan ko waaw ah. combat Serigne Ndiaye ak Libidor yaa ma koy analyser non combat bu combat neex la ñoom ñaar xamante nañu bëre nga ak ñoom ñaar ñëpp ci mbapat ñoom ñaar yëpp ak ñoom ngi eh waay. vraiment ñoom ñoom samay gars lañu waaw que le maire gagne ñoom samay gars yi jomi. boo bëgg a bëreel. maa ngi 11 combat 10 victoire. sampal fii nan. yàlla xam na ne man bañu ma kenn kenn ñu. doo samp fii nan. ku ci pare man pare naa. sampal pare naa ci ñoom ñaar ñëpp ak keneen ñëpp pare naa ñoom ñaar ok Babacar. internetu Leewtoo TV yëpp nuyu naa leen ñaari mbër yaa nga ca de. waaw waaw ñu ngay lewtoo de Matar Diouf ca Italie moom ndondol la dëkk maa ngi koy nuyu fu nuy wax jàmm gën daf may bëgge Matar li bi doon sàcc na génnaat jàppanteeguñu de mu ngay xeex moom ee eh, turni ko mu daanu laa ilaha illallah be turni ko mu daanu laa ilaha illallah da koo dóor mu daanu oh Serigne Ndiaye na koo door mu daanu oh Serigne Ndiaye na libi door mu daanu eh yàgg maar da koo door mu wàcc